abonneel gaaw ci sa chaîne bii ji ASG production gi jot bépp xibaar bàyyi ko ci yoonu murit c'est benn xew-xew bu am démb ci Sénégal bu am solo sëñ Muntaxa woote bi mu woote démb ànd ci ak euh, njabootu Cheikh Ibrahima Fall yëpp ci zikrullah ci tudd yàlla ci fàttaliku yàlla mu nekk euh, jamono boo xamante bu am solo la ñu ko aussi ci jamono bi parce que tudd woo nit ñi ngir ñu tudd yàlla mooy woo pour ñu fàttaliku yàlla woo nit pour ñu fàttaliku yàlla mooy woo nit ñi pour ñu fàttaliku le sens même de leur existence sur terre woo nit ñi ñu fàttaliku le sens de leur existence sur terre mooy woo leen pour ni ko sëñ Saliou doon waxee li ñu fi indi te ñu fi je pense que li ci ëpp solo mooy di te doo di te doo je pense que c'est la somme de cette attitude de ces attitudes Mon moi tax ñu mën am vivre ensemble boo xam bu mucc ayib ndax je pense que ne Choki bi metina, na raag bi métti na de part et d'autre rayante bi metina, na dóorante bi metina, na rayante au figuré comme au propre dóorante bi metina, na euh, à tous les niveaux au niveau ci famille yi ba ci fa gën kawé famille famille bi gëna touti ba kër ga gëna mat ci dëkk bi fep xex rek la. ak te dara culture du suspicion ak rupture de confiance ak défiance voire même insurrection je pense que né loolu motax ñuy njukkal bu baax sëriñ. Mouhamadou Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi ak euh, ñi nga xamante ni ñoom la ci àndaloon muy njabootu Cheikh Ibrahima Fall mm. euh, ci ne fàttaliku yàlla ni ko sunu borom waxee moom moo gën a màgg lépp waaw inna salaata tanha anil faxshaai wal munkar wala zikrullahi akbar mm. alxuraan tamit wax na ala bi zikrillahi tatma inal xulub nee na ci tudd yàlla la ñuy amee li nga xamante ni moom la rek la nit soxla parce que ay milliards du ko joxe leneen du ko joxe ñu ne ko mooy lan mooy la quiétude